jërë ngeen jëf mbokk yi seen seen site internet leelu point com comme ni ñu ko woon nag tey ci ndigal li nga xam ne Serigne Sidi Makhtar joxe woon na ko jaar ko Serigne ba Bassir ñu ngi fii ci jumaa ji nag ginnaaw bi fukki waxtu jotee ba tegal ay simil mbooloo mi nag fees na dell kenn ku nekk rek fas yéene jëfe ndigal loolu. tey bisub alxuraan bis boo xamante ne suñu ko jagleel alxuraan fas yéene koo xëy ba tisbaar jottu lépp rek muy dellu ci tuub sàkku sarax baante ak ni ko sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke xam sax damay déglee seen site internet leelu point com fas yéene ci ànd ak yéen waaye fàttaliku dégluwaat kàddu yi sëriñ Muntaxa ndaka lañu war a jàppe alxuraan bàyyi leen fi ci àgg waaye a may leen paas sax ci càggante gi nga xam ne bëgg nañ ko ñu si sàggane alxuraan loolu du lu ñuy wax ak lu ñuy dañ day romb suñu nopp rek waaye déggunu ko li ñuy jëf li nekkoon rek ci lañ nekk waaw nekk ci bëgg alxuraan fonk ko di ci liggéey jaaxal suñu jeexal suñu lépp sëñ Abdou Aziz na sa xel daal bu baax li nga li xam xam nañ li nga bëgg xam nañ li nga bëgg lislaam nga bëgg alxuraan waaye na sa xel daal bu baax a baax a baax a baax lii nu nekk kenn mënu na ci jële dara mënu na ci jële kanam rek la jëm ba di penc ba kanam rek la jëm du sooxee du du du du doyadi ñi ko ñi bëgg ku bëgg a doyadil sàggane alxuraan wala nga bëgg ko doyadil yaa yaa yow ci yow rek lay dellu kon nañu seet seen bopp ñi nga xam ne ñoo ñoo bokk lislaam te di ay kilifa nañu dellu ci seen bopp nañu taal seen bopp seen diggante seen diggante seen borom lu ci mën ñu def ko te fonk alxuraan lu ñu mën a dimbali nga xam ne ñoo léegi ñooy léegi ci alxuraan itam ñu maanu ja te xam ne xëy na ñii dañ leen sédd lii ñi ñoom ñu tëdd leen leen te nekk seenu liggéey waaye buñ jëm mukk ci alxuraan ndax mënuñ ci dara kenn mënuñ ci jële sëñ Abdou si ne sa xel daal bu baax jërëjëf si jërëjëf jërëjëf Touré jërëjëf Touré ñoo ngi sant ñoo ngi leen di sant di gërëm bu baax a baax a baax gis nañ jéego yi ngeen jéego seen jataay bi yépp xam na yëg nañ ko seex mu seex mu seen seex Sidi Moxtaar mi ngi leen di sant di leen gërëm noonu ko fas si ànd ak yéen rek waaye bu xel dem ci dara lu nekk ci alxuraan rek jeexal ci suñu lépp yëg xamuñu dégguñu koy wax xamuñu koy pexe noonu yàlla rek la ñu la ñu xam yàlla rek la ñu wut xam ci rek la ñu wut a nekk kon loolu rek la mooy wax bi ñi ngi sant euh, sëñ daara yi baax nag yéen ñi nga xam ne. yéen yéen yéen ci nek ñëpp ñu ngi leen sant di gërëm bu baax waaye na seen xel dal na xel dal bu baax nekk leen ci li ngeen nekk rek lu leen ci fekk rek na ci fekk lu leen ci fekk rek ci fekk kuñ ci afekkoon xam ko jël itam na wax la si si naa li waxoon rek fawzu fawzu bi rabbil kaab rek la wax foofu rek leen di nekk nag noonu rek la demee na na na amul amul lu ñuy xalaat amul lu ñuy sakk sakk amul lu ñuy férféri nan nekk ci li nu nekk ci yàlla lan nekk ci yàlla lan nekk yàlla moom lépp yàlla mooy moom moom moom moom mooy def mooy dindi mooy borom kàttan te dara wupp ko yàlla moo nu gën moo nu gën a xam suñu bopp gën ñu ci suñu bopp nan xam loolu te nekk ci li nekk jërë ngeen jëf. sëñ sëñ Abdou Aziz ñu ngi lay sant leen gërëm bu baax di sant mboolem sëñ daara yi fi ne yi fi teew ñu ngi lay sant leen gërëm bu baax yéen yàlla dina ñaan suñu borom mu sàmm leen sàmm leen bàyyi leen fi may leen wér kattan ngeen gën a nekk ci li ngeen nekk gën a fas yéene nekk liggéeyal liggéeyal liggéeyal liggéeyal alxuraan di di ñaan ñi ko bokkal bokki sëñ daaraam yi mooy ku mag ku fokkal fatiha rek lim leen ñaan nañ ko wuñu wuyu leen ko ca seen njëriñ dong lay doon da leen di daleen daleen di defaral seen seen seen wërsëg da leen koy dollil te suñu boom bu noppi daleen koy delloo loolu rek la na ngeen ko ci wuyu bu baax a baax a baax te xam ne dara nekku fi dara nekku fi yàlla rek a fi nekk ak jëf ju baax gëm yàlla jaamu yàlla jëf ju baax loolu rek fi ne leneen nekku fi lu ci lépp kuy am joxoon ajo adduna li ci biiram doo tee wopp dootee ragg dootee jaaxle dootee bari fitna dootee da da ngeen di wéy te doo xam foo jëm la nga am doo xam noo koy def amul benn njariñ li am njariñ mooy am yàlla yaakaar àllaaxira ëllëg loolu nag gëm gëm rek waaw gëm rek jaam gëm jaam jëf lu baax jeex na. lenn ñorul lu sëñ Tuubaa rek lenn ñorul lu sëñ Tuubaa ak ak ak njabooto gi. di ñaan yàlla sunu borom nga xam ne dara tëru mu defal nu ak wér defal nu ak tal defal nu ak man te di ko jëfee fu nu toll sax ci ndigalam rek te lépp loo xam ne moom lay tere kenn duñ ci seen kenn duñ seen ci yoonu jëm ci jërë ngeen a jëf